asalaamaaleykum sunu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi safo sbt média point com ñu ñëwaat amaan mbégte ak kontaan ñëwaat tey seen émission keppaaru waa kër Nabi tey nañu dalal ki nga xam ne si nii moom mooy Cheikh bu mbaay bokk ci kër maam Cheikh Sadou Aby turandoom Cheikh bi ñu ngi lay nuyu. ñu lay sant bu wër alhamdulilah. tey boo ñu doon wax kan mooy Cheikh Sadbou mbaay ci tënk. waaw Cheikh Sadbou Mbaye mi ngi nii. di taaliba Cheikh day Calaw Seck di doomu Modou mbaay di sëtu Dey Calaw Mbaye mhm. Cheikh Sadou Mbaye lan moo la boole ak waay man waay dama kaa donn sama baay sama baay donn ko si baayam mhm. man sama maam Dey Calaw Mbaye moo doon wayal Cheikh Dey Calaw Seck gaynde nguraan mhm. sama baay Modou Mbaye di wayal Cheikh Makhtar Seck dama donn way si baay donn ko way sama maam bu jigéen da doon way sama maam bu góor da doon way ak yontu bi dama kaa doonu deret la. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. kon ñi nga xam si ni ñu ngi ànd ak ñun ci sbt media point com ci seen émission keppaaru waa Kër Nabi tey ñi nga xam ne ñoom ñu ngi lay doog a gis waa ilaa daan nañ la dégg lan nga leen mën a may ñu béggalee ko soppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. fadidul ilaa jaalil badaanaalam tawaakibal ilaa jawsaa ilul libaalu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala laal faw bi ajuuj waay bila kaatibi sayyiduna muhammad muhammadu rasulullah kenn du moom muhammadu rasulullah walaay la alfaw bi satrayni xad xuta bila kaatibi aladlu wa tawqido fi janibi ñi ñooy maamu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ñooy maamu Cheikh Sadul Abi ya ahla bayti rasulullahi ya axla bayti rasulullahi xubbukum fardun min allahi fi lquraan anzalo yaxfikum min azimin qadri adnakum sopleen faratala nawleen nawleen faratala sayduna muhammad seex saaru la bi neena bi nuuri azaawu ma fil kawni wuxtiya ibaadu siran aw ne jadda alayhi bi mu xitaabi wa suut borom nim saat neena tafaddulan eh, waaw na daal xiyaam واسجد جاتنا واسجد سيدنا محمد جالتني محمد gën sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf Cheikh Saad bu Mbaye macha allah waaye am na solo ñu ngi ci ndokkeel képp koo xam ne soppi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga rawatina sama xarit boobu sama baay jooju baay alaaji Njaay dëkk fële ca école neuf di sët ci ki nga xam ne nii moom mooy Cheikh Deye Thialaw gaynde Nguraan comme ni nga ko waxee macha allah ñu gën koo xam ci Elas Elas Ndiaye 2000 ñu ngi koy nuyu bu baax waaye di nuyu it képp ki nga xam ne nii yaa yaa ngi nekk soppe yonent bi sallallahu wa sallam nga xam ne li nga wax mooy da doon way dëgg la ci yow mais ci biir doon way gi bi nga kañ nga commencé way man ba sama baay génnee àdduna l'an 2000 ci laa commencé di yëg yunti la Muhammad commencé di yëg rasulullah te way naa lu ne doon naa ànd ak gars ñoom musaa yaayu joor ba si Thiat Seck ba si kiñ naan Baye Seex di ànd ak moom simb yeeg mbappat yi mm-hmm. waaye sama papa dama doon wax Cheikh Saad Bou ma ne ko ah mu ne bis boo bëggee mën a way bis boo bëggee way wayal Seydina Muhammad moom nga doon. sallallahu alayhi wa sallam. bi sama papa génnee àdduna nag si laa commencé di Rasulullah su ma dégg ku yooyu yonti bu mel ni man maay way sama deret bi. Hmm. ma commencé nag ne mii lii laa bokk ba sama papa feeñu ma si ndox sol lu rafet na ma Cheikh ma ne ko ah mu ne ma xamal sa bopp tagg yonti bi nga doon te boo waye way yërëm la. ma ne ko papa way lan la ñu yërëm mu naa ah, way daa nekk sa deret boo woyee way yërëm la lii moo ma dugal si way mhm. ban année nga tàmbale way ban année waaw 2009 laa commencé way nga commencé way yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw dëgg dëgg 2009 laa commencé ah. lu jiitu lu jiitu ngay commencé way yonent bi kon ni nga ko waxee yaa ngi doon way ci xeetu musique yi am nii ay ñoom caar ak yoon est-ce que loolu xeran ñoon nga ci seex Sadbou est-ce ni nga mel ci way yonent bi ni sallallahu alayhi wasallam mën nga ko fale boobu ndeysaan maa ngi doon topp gaay rek bëgg way bëggoon ko rek xam nga way doomu géwël foo nekk si way moom di nga way mm-hmm. foo nekk si way di nga way foo nekk si way di nga way wallaahi doomu géwël foo nekk si way di nga way waaye dem naa ba léegi nekkutu sama xel gàmm ko sax fàtte naa ko lu ngir bëgg Seydina Muhammad bu dul dara sax wallahi azim dama bëgg yunti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su may way rasulullahi sama bopp laa koy wéyal dama koy yëg mm-hmm. barke yunti bi alayhi salaam mm-hmm. mu mel ni que euh, tey la moo tax doo am ay programme comme yeneen waykat yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu koy amee ñu di woo ci tante yi di woo ci mariage wala ngénte yi ah la moo tax loolu. waaw pourtant maa ngi am ay benn benn programme ba bii paase rek fan yee yàggul dara sama benn jigéen ñu bokk ñu bokk si waa kër Cheikh Day moom laa doon woyal benn ngénte waaye nag li nga wax dëgg la xam naa ni média bi ñoo ma desee xam rek wala li ma defagul dara si télé bi. waaye maa ngi am par benn benn programme. est-ce que nekkul ne comme programme moom bu ñu la wooyee nga dem bu ñu la wóor nga dem est-ce que nekkul loo moo tax ñu ne ah moom Cheikh Saad moom jërëta woo comme moom dina ñëw jërëtu woo sax di ko engagé mu lay facturé ak yooyu est-ce que nekkul loolu moo loolu moo tax mënagoo am ay wallahi azim barke yonent bi du ma dem fuñ ma woowul barke Cheikh da Calaw du ma woowul barke yonent yàlla Muhammad mhm. su ma bokk ak yow sax guddeeg bëccëg ñii ànd nga amee say bis yëgaloo ma ko du fa ñëw wallahi azim loolu sama jikko mhm. ngir tagg yonent yàlla Muhammad boo koy def boo si amul personnalité mooy loolu rawatina tag yonent bi daay riis mm-hmm. koo koy defal na ko xam mm-hmm. koo koy defal na ko xam mm-hmm. waaye nag am na ñoo xam ne dañoo bëgg yonent yàlla xam bëgg boo xam ne dañ liy bëgg di la woo sa kër di la teral waaye nag sama bàyyi daan wax naan Cheikh Sadou ma ne ko ah mu ne ma tagg yonent bi dee ko defal ko xam bul si ñàkk fayda lool booy génn sa kër kenn bu mu la yërëm melul na mel loo xam ku la gis xam ne takk yonent bi ngay wallaahi du ma dem fuñ ma woolu barke yonent ah, loolu loolu moom loolu leer waaw ba tey ma leen di fàttali ñi nga ànd ak euh, Cheikh Sadibou Mbaye ci seen émission keppaaru waa Kër bi waa na bi nag nekk émission boo xam si dañ ciy jël ñi nga xam ne mooy tagg côté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am waxtaan ak ay yu mel nii may profité rek ba tey di ci sama xarit yooyu nekk Pikine tali bu mag Alaaji Ngañ Jóob ak ki nga xam si nii moom mooy Taala ak ki nga xam si mooy mooy Baay Jóob ñu leen di siyaar bu baax nekk ay jaakati si foofu ca Pikine tali bu mag di leen siyaar bu baax di nuyu Modou Café bu baax a baax a baax Cheikh Sadou Mbaye mu mel ni que bokk na ci euh, léegi programme yi li fiy xew est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que loolu tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek que programme bu ne ba am ay xëccoo njëkk a doo njëkk way ba mu jaral ay saaga ak yoonu est-ce que est-ce que loolu est-ce que loolu tagg yonent bi la waaw nit ku ne ni nga mer rek foo dem danga koy wone waaye sayduna muhammad boo koy tagg war ngaa dal war ngaa am yar ñu bëri nag dañuy yaakaar ni wutum dépasse lañ koy def yaakaar na bu ñëw si programme bi bu ñu waaye du ñu am dépasse bu ñu indi kër ga waaye kenn ku ne boo gëmee yàlla luy sa wërsëg di nga ko am te nit ñi dañoo yor seen bët di xool boo toogee si programme dal nit ñi sax bu xëccoo amee nit ñi yow lañuy naw dinañ la teral sax doo ko yëg wallahi azim damay dem programme penen saa yi toog ba sama gars yi dañ mën a da nga ragal ngir dal wallahi azim ba bii passé rek sama benn jigéen lañ doon takk dayee faak jànkat xasida yëpp waaye maa mujjee way te fa njëkk waaye li ma fa yàlla jox kenn xamul nit ñi jël sama numéro fala sama mook sama papa ji di way du njaay meng bëgg seexul xadim loolu jox ma fa xaalis bu bari parce que yonent bi te àdduna lu am solo mooy dal te yonti yàlla Muhammad boo koy way bu dëggoo si yow rek bu dee dëgg la rek munoo doo ñàkk dara xanaa nag nga boole ko lu bokkul ñu si ëpp ñuy def loolu dañu dañ koy mbubboo rek waaye takk yonent bu dëgg-dëgg dina dal te fu mu jëm yonent bi la te lu mu am rasulaay moo koy jox hmm. sallallahu alayhi tey boo ñu doon identifier ci lu gàtt rek maam ñi nga xam si ni ñoo war tagg yonent bi sallallahu alayhi wa kooku ban comportement ak ban melo la war a am waaw takk yonent yàlla Muhammad war naa am yar takkat sayduna muhammad war naa rafet xol naa roy jikkoy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam takkat yonti yàlla muhammad war naa am jàmm war na nag war naa am personnalité tamit mhm. takkat yonti bi kenn waru kaa gis di ko yërëm bu dee dëgg la mhm. takkat yonti bi dëgg kenn waru kaa gis di ko yërëm bu dee dëgg la mhm. takkat yonti bi moom ku la gis war na xam ni sang nga ngir sayduna muhammad sang la xayrukum man ta'allama al-qur'aan wa 'allamahu yonti bi nee na ku gën si mbindeef mooy ku jàng alquran ba pare di ko jàngale waaye nag ku may roy tamit gën nga si mindeef mooy man maa gën si mindeef te takkat yonent bi day roy sunna ak sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku gis xam ne takkat yonent bi nga sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni que Cheikh Sadou Mbaye yéen a ñi ngi ànd ak yow ci seen émission Keppaar Waa Kër Nabi nga mayaat ñu tuuti rek ñu ci Cheikh de Calaw ngay dem ne gi allah bu ko defee ñu bégle ko soppay Seydina Muhammad la alayhi wa sallam ma njaate faati mbay ak ma njaate ndumbek mbere nga njaari borso bur yoo bur yoo bur yoo bur wal yoo ma njaate faati mbay de calaw nga njaari borso ma bum det ne sama sëriñu baay Cheikh de Calaw sama sëriñu maam maami Cheikh Makhtar borom yàlla nee na sama sëriñ sama sëriñu baay baayu umu jaaw Seck baayu Maxfo baayu Mbay Seck maa bu ne nee nga ñaari bor njaaya bur yoo rabbi bi saadidna wa saadal xayri bi jaayila bi jaayilan faaw kula deyri maa bu net ne wa bi muhammad sabi seexina wa seexina narjo bi naylun muna mabu net ne mabu mi net ne burwale yo burwale yo moom la woolu moom la doylo moom la yabaloon sandar musulul ka néew ya ndar yóbbu ko gànnaar saadu la bi seex saadu naan ko mët naa ko yow saadu bee ala tasadu yow mal bi bi jaalat naa imaamu kulumar jaat naa seex de calaw wa bi muhammad sabi seexinaa woo maamu mi ndet ne nga ñaari barsa njaay seex de calaw jërëjëf Cheikh Sadou mbaay macha allah waaye am na solo mais way wi nga way nii kan nga ciy bégal sa ban soppe waaw man si bégal Mbay Seck sama sëriñ nguraar man si bëggal sama jigéen Umu Jaw Seck man si bégal sama yaay mère Kodou sekk dëkk sa pikin école neuf di sëtu Cheikh Day Calaw sekk bu wér maa ngi baa bégal waa nguraan yëpp maa ngi waa nguraan yëpp di si bégal sama sëriñ sama sang Jeylaani Gueye di sëdu Cheikh Day Calaw Seck. si bëggal ñëpp. si bëgg ak waa Nguraan yëpp. ndeysaan jërëjëf Cheikh Sadbou ba tey ñu ngi fàttali leen ne ñu ngi ànd ak yéen seen émission keppaaru waa Kër Nabi ànd ceeg ki nga xam si nii moom mooy Cheikh Sadbou Mbaye macha allah nekk koo xam ne ndaanaan la Cheikh Sadbou projet yi lan la. projet yi lan waaw ñi ngi si kawam ñi ngi si liggéey bu metti ñi ngi si kawam ñi ngi waaj single pour bu sama jàng yi passé buñ gàmmoo pare ñu ngi siy waaj wallahi ñii liggéey bu baax ñii liggéey bu baax ñi ngi siy waaj kattun yàlla te am na groupe bi ñu am na benn daayira bu ñu formé yàggul dara ñu tuddee ko daayira Seyduna Muhammad nabiyee ñëpp képp ku bëgg yonti bi rek ñu ngi siy waaj te group boobu ñi ngi waaj mu suude ñi ngi ñaan ñi ngi bu baax ñi ngi liggéey waaj bu baax di ñaan yàlla yàlla ko yàlla moo mottali si barke Seydina Muhammad di ñaanal sama waajur bu jigéen bi ma desee yàlla ma yàlla bàyyi ak moom ba ma teral ko si kàttanu yàlla si barke Seydina Muhammad ngir sama yaay la daa muñal sama baay ñu fekk lépp yàlla yàlla def si barke dib sa mu mel ni mu mel ni mu mel ni Cheikh Saad Bou tey fi gis waykat yi àgg fa te nga mën a way macha allah lan lan lan moo la téye lan la lan la waaw du dara am nga lu jot yomb lu jot yomb lu jot yomb waaye ñi ñii sant yàlla fi ñu toll ñu ngi sant yàlla ndànk-ndànk la rek ñu ngi sant yàlla waaye lu jot yomb. lu jot yomb te ay xalalañ lañ te ñu ngi si koom te am nañ si yaakaar dina baax ñu ngi si de yàlla baax na. Hmm. am yaakaar bu baax. Hmm. kon daal mën nañoo xaar singalu Cheikh Sadou Mbaye après gàmm après gàmm. Uh-huh. incha allah ok Cheikh bu est-ce que am ngay projet pour dem Grand Théâtre pour dem Sorano. wala nga def ay programme fii sa koñ ñi ak yooyu lan moo tax duñ la gis ngay def yenn événement yi comme yeneen kat ni nga koy defee. pourtant chaque année ma def sama sama bayal bi programme bu rëy chaque année wallahi azim chaque année ma def programme bu rëy comme programme yi gars yi def programme dóor wala programme dóor wala. déedéet man sama programme du dóor man sama programme si lu li si ëpp sax wallahi azim doo si gis sax politique seen yi barke yonent Yàlla Muhammad wallahi azim. mais politiciens yi da nga leen ci war a boole parce que ñoom dañ leen fay teg ci commune bi pour pour pour mel noonu. parce que yéen nabiyen yi bu fekkee laaju ngeen li ngeen war a laaj donc ñoom dañ koy jël def ko ci leneen. est-ce que kon jotul yéen it bu ngeen ne dañuy def comme li ma la wax nii dóor yi tax ngeen bu ñaan waa ji day dóor tax du ngeen dem ci politiciens yi ak yooyu mais politiciens yi ñoom ni jàppalee mbëri làmb yi di ko jàppalee waykat yi ak yooyu mais nabiyen yi ci la sax am na sama benn kiñ naan Lamine te dëkk pikin noor moom samay jàng da si sonn di ma ci teral ak jara jara géejuwaay laa dëkk de waaye dama koy fekk pikin biroom na der way yunti bi mu teral ma jara ku baax ak Lamine dañ may teral samay jàng wallahi azim wallahi damay jara sama jàng wallahi ma leen di fàttali ba léegi ñu ngi ànd ak sbtmedia point com ci seen émission keppaaru waa Kër na bi dalal Cheikh Saad bu Mbaye Cheikh Saad bu mel ni que li ñu mën ci wax day bëgg jeex tey boo ñu doon wax loo xamante si ne nii dund nga ko ci bi nga commencé waaye ak léegi mu doon lu metti nga xam ne bu sa xel demee rek sa xol sa xol mu metti daal lan lay doon waaw ma jóge ginnaaw raay seetaani Alla Diop ak ma taar moom yàgg na ma jóge fa jéggi si ginnaaw raay bi di dem dégg ay gaay ñi das paaka am lu ma wayloo sayyiduna muhammad wallahi azim man der di way yonti bi naan bi kaw la bi ana jalaalo awa idul iban najran tazali yow yeneen doo ñoom te duñu yow du yàgg ba ñu ya xayrul anbiya di wayantu loolu benn gaan jóg jox ma 250 sama gaan yow foo jaar yoon la sa voix neex na yàlla yàlla fay wayal yontu bi kese jareen gars topp ma jox ma xaalis te tiitoon naa moo waral loolu moo way yontu bi ñu ñu ñu ànd ak man ba ma jéggi ba continuer ba dem côté syndicat bi ñu mën a gaan demal jàmm rek nga yem. ñooñu ay agresseur la ñu woon. wallaahi dama leen fekk ñiy daas ay paak ay jaasi loolu yàgg na. ma jub leen rek tagg yontu bi ki ma njëkk a jox jox ma juróom fukk yeneen gars yi jóg ndeysaan naan ma gars yi bi neex na nag gunge ba syndicat bi ma continuer noonu dem. te boobu damaa jóge programme Alla Diop yoru mu lu ma paasee may dox. ndeysaan. te foofu am na lu ma neex lu ma mett tamit waaye bu ma dee ba si biir am na lu ma neex ngir bu ma gaay jamono wala leneen dina metti waaye mujj bi gaay dañ ma teral yëkkati ma ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam donc mu nekk loo xam si jaar-jaar la jaar-jaar la ban ban ban jaar-jaar nga ñu ci mën a nettaliwaat ci foo xam si dem nga fa nga nga nga nga war a way sax wala nga siiw ñu ñu nangu micro bi ne la lii frustré la. am na benn programme bu ma mus a dem tali bu mag fi xayma bi di nekk loolu yàgg na ma ñëw di woy ndeysaan sama baay boobu yàlla du ma wax turam yàlla ko yàlla xaraaj na may woy mu këf micro bi jour boobu sax géew bi xaw xaw naa jaxasoo ngir du kure du kure amoon nañu mu bëgg man leen garaaw jour damaa jooy ba suñu kër dox jooy ba suñu kër. te maa ngi ñaanal sama baay boobu yal ko yàlla xaraaj jana du ma wax turam nag waaye ko siiw la si kër gi yal ko yàlla xaraaj jana donc loolu bokk si jaar-jaar yi nga xam si ne dund nga ko si si si si si si tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni que tey boo ñu doon wax loo xam ni dund nga ko si maanaam mu neex sa xol sedd saa sa xol demee rek nga ree bëgg lan lay doon waaw mooy ba may doon xale damaa mus a feebar entre Rouen Bodiwe sama yaay jaay ay takkaayam ngir man ni sama yaay jaaye takkaayam ngir man ma way yonent bi sama benn jigéen may ma ay takkaay jaaro ak seen plaqué bu rafet ma ñëw indi ko sama juróom kontaan naa ngir sam papa da ko doon wax sa doom ji tudd Seex saat bu mu tax nga jaay sa or fajee ko ko dina la jëndal or boo defar la lu ne jour boobu bi nag image bi mel ni tey la si man ma kontaan jooy te maa ngi ñaan yàlla dugal ko si kër di lépp si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla mottali mu mel ni que boo amoon beneen jaar-jaar boo si nettaliwaat ci bànneex yi lan lay doon. waaw mooy nguraan bii paase. nguraan bii paase sama papa da doon taxaw nguraan di tagg yonti yàlla Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam nguraan bii paase damaa ñëw ñu ne ma Cheikh Sadou ma ne ko ah mënoo jugal tagg yonti bi heure bi sa papa doon way nguraan. boobu tamit kontaan naa jooy naa ngir sama xel yëpp dem na sama baay waaye sama xol neex ngir sama ëttu baay ak Cheikh da Diallo ma yaakaar ma taxaw fa tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa parce loolu tamit neex na ma lool. parce mu mel ni que li ñu cëraloon ci waxtu mi ngi tàggoo tey boo amoon loo xam si danga koy da koy sant ak gërëm ci ñi lay jàppale ñan lay doon looy tàggatoo. waaw maa ngi sant sama waajur bu jigéen bii ma dese maa ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg fi téwéer di sant sama famille yëpp di sant nag kiñ daan Ibulaay Ngom sama xarit dëkk Pikine jàppale na ma si li may def tag yontu bi ak sama jibi jibi mbay. ñoo ñu jàppale ma sama jàngi ñoo si sonn dëkk Pikine bëgg ma ngir Seydina Muhammad ak Papa ngoom ñoom ñëpp waa Pikine jàppale nañ man nag ngir bëgg ak sama benn yaay bu ñu naan mère Ndeye sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ne la may defal si yonent bi lii bu ko yëgoon sax këram laa koy defee fii la dëkk mer Ndeye Ndiaye sopp na bi ku ma bëgg la bërki démb rek la la jël tiisi jox ma ko ngir yonent bi ak kiñ naan jibi jàlloo sama tabale yi ma yor ba may dem DTV daaw si koor gi moo jël 4K dem dugal ma si yawal ma aller retour fay gasoil lépp tabala yi ma moo ma yattal tabala deux cent cent mille yattal ma tabala jox ma ko àddiyant bi ji ma teral ngir Seydina Muhammad maa ngi koy sant jibi ka jibi jàlloo maa ngi koy sant Baye Mouhamed Diallo ku baax ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yonent bi fay si barke Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon kon kon daal am nga orchestre tabala boo xam ne fu la waaye soxla rek nga jekk jekk nga. bu baax wallaahi. joxe sa numéro téléphone pour ñi nga xam si ni bëgg nañ lay jot di la bëggee. 77 839 18 02. 77 77 839 18 02. numéro yaa ngi noonu Cheikh Saad bu Mbaye képp koo xam ne am nga programme rek te mu nekk sa soppe nga bëgg mu wayal la fa boo wootee ci numéro yooyu incha allah rabbi euh, di nga ko jot. sa numéro direct la. direct la waaw. ok mi ngi noon kon tey lii la leen andiloon seen émission keppaaru waa Kër bi Cheikh Sadou Mbaye dégg ngeen ko way na wax na jaar-jaaram macha allah dafa doon na way kenn dootu ko présenté macha allah te ku dégg na mu waaye xam ne doonoon na way te way mi ngi ci deretam Cheikh Sadou Mbaye SBT Média TV ñu ngi lay jaajëfal noo gisee SBT Média point com. waaw macha allah neex na lool te yéen a ngi jàppale jeune talent yu ñu xamagul te li ngeen def dafa rëy fekk nit ci këram waxtu nit ci pour si àdduna xam ko yàlla leen yàlla guddal fan yàlla leen yonent bi fay seen fay nag ku leen kenn du leen fay ku dul Seydina Muhammad alayhi salaam li ngeen def dafa rëy ak weeru gàmmu gi yàlla yent bi fay rawatina yéen ñu baax ñi yàlla yent bi fay si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi mu mel ni que comme ni nga ko waxee gàmmu gi du ñàkk looñ ci defar rek laara ñu ko si ci ci ñu xool ka ni ñu confirmer nga confirmer sax ndaanaan ka ni man nga way nga nga nga nga tàmbalee ko Tiwaawan ci maam ëttu maam Cheikh Sidi Haas Malick macha allah di siyaar xalifa bi di kilifa diine yépp ci biir réew mi rek waaye nga génn fa dugg dem ci ëttu Seydina Limaamu ñu tàggati ko ko jeexalee ko émission bi bisimilah Cheikh Saad Bou Maodo nii di yeween si Malick dencul dara muy deeñ ay mu lay da baaxooy Maodo Maodo si Malick ci waawan fale yonen tegoon ndabam si Malick aram ñongo soxna ngu njaay faama ooy ndar ndar la waalo waalo la mawdo ma dégin demba jaxate njaay faal may se biige kuma faale ibra faal joojo ko du faali Farma Yaasin daawul misibul Sëriñ Bamba ñi dimbale Bambaay taawloo Musawa caatloo Murtada Sëriñ Bamba mu jee woote waaw ëppi ndongaam gën a gëmle gën a lay kenn du doomi maam jaara baayu fallu lay yukki man yasaaw zalika fadru lay seex fallu fallilo fallilo alaa ji fallilo barxaab ma barxaab ma ñas kumba abdallah sëriñu Balla Mbaay sama waaje baay jikko yonent bi la laak ngoo baay madina baay barxaab ma waa idun jaliilu ma baay neena maa ngi nii yonen la baay neena maa ngi nii di dox mustawaala allah allah baay ilallah woo laa ilaaha illallaah illallaah ndeysaan jërëjëf Cheikh Saad bu Mbaye macha allah way am na solo ñu ngi ciy ndokkeel soppe yonent bi sallallahu alayhi wa yëpp di siyaare Njaasaan di siyaare ëttu këru diine yëpp di siyaare Canaba di siyaare na Niassène di siyaare Medina Baye di siyaare Touba di siyaare Njaareem di siyaare fépp foo xam ne rek kilifa diine nekk na fi si biir réew mi ak euh, bitim réew di siyaare nag euh, sama xarit Serif Saaya ay dara. ca Ngumba di siyaare ah Serif. doomu Cheikh Mouhamed Ba. waxiyatu siyaar ñëpp rek macha allah képp koo xam si rek deretu yonent bi salaam salaam fa nekk ci biir lay bu baax a baax di leen ndokkeel di wax ne sbt média point com lii la leen indiloon tey ci keppaaru waa Kër Nabi Cheikh Saad bu Mbaye jërë ngeen jëf